li ma leen di jox nii nag ci wàllu nob la nob bu yéeme yéeme ma bëgg nag yow mi nga xam ne yaa ngi koy jéem def ko nanga ko def si farata nanga ko def si farata bu ko def ci yëfu caaxaan euh, ñaareel bu leen di dimbale di leen jox yenn secret yi dafa fekk ne ñu ci bari ñu ngi dund ay jafe-jafe seen sëy moo xam ku góor la wala ku jigéen ki wala ki nga xam ne tey yaa ngi bëgg am koo xam ne yaa ngi bëgg sëy ak moom si farata. wala muy ko góor ki wala muy ku jigéen ki yëpp mbir mi xaw a jafe wala nit ki ngay bëgg yenn saa yi sax ay jafe-jafe di si moo tax ñu leen di jox yi pour ma leen li dimbalee ndax nekku ne fu nekk ngeen mën a dem pour mën a ñaan kon yow mi koy def farata gi na si jiitu boo ko defee pour caaxaan wala nga def ko pour jublu si lu bon li ngay def yàlla boo ko gis te boo si defee naka su du noonu itam di nga ko docc kon def ko si farata bu ko def pour yu fi caaxaan pour ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a seetlu du seetlu seen ay mbir si wàllu diggante wala nga bëgg a seetlu lu jëm si wàllu sa tabian maanaam sa biddiw ak biddiw ki ngay bëgganteel ndax ànd na wala déet wala nga bëgg a seetlu seen mbiru bopp incha allah bu ngeen di yónnee message si whatsapp bi 76 605 63 19 wala ngeen woo ñu dinañ leen ko defal incha allah kon secret bi jax tax tiirun ngay bind moom ngeen gis image bi moo nekk noonu si kaw dina gën a ñëw mu gën a leer waaye damaa fàttee def. benn alif bi si beneen taa bi taa bu njëkk bi def naa fi alif bi si kaw comme ni nga ko gisee beneen taa dama ko fàttee def léegi nag bu leen fàtte yéen ngeen def fa alif dégg nga alif bi si la war a bokk soo bindee jax tax tiilun da nga yaatal taa yi ñaari taa yi ngay yaatal dégg beneen taa bi damaa fàttee def alif walla mi ngi nii damaa fàttee def bu njëkk bi def naa si alif si kaw mooy euh, liif bi ngeen gis noonu beneen bi nag defuma ko si dama ko fàtte mais ngeen def ko si léegi yow sa tur turu ki nga bëgg nga fi bind turu turam ak santam bu la neexee boo xamee turam ak turu yaayam nga defaale ko fa léegi benn léegi sept fois nga koy bind sept fois juróom-ñaari yoon soo ko bindee nii da koy bamtu ba mu sept fois su ko defee nga dugal fa turam ak santam ak turam ak turu yaayam nga tëj taay soo paree nag da nga koy def si benn euh, kaas bu ndaw nga jël ndox moom noonu raxasee ko sa awra bu dee góor wala jigéen rax sa awra soo da nga koy dékk soo ko dékkee pare nag da ngay fexe nag bu mu fanaan nag bu mu fanaan nga def ko si lu muy lekk wala si lu muy naan. bu ko kasse ba ñam mu dugg si gémmiñam bi c'est fini jeex na kooku moom xam kan waye ba soobu yalla yow rek lay waté man nak suma koy liggéey dama koy bolé ay ñapantal ak ay yenen bir waye nak fam bir yo xam do ko mëna léral waye yeen def leen lii ma leen jox ni mu xawa simple ñen def ko euh, benen bu fekkene amoo occasion pour def ko ci limi lek wala ci limi naan bind ko comme ni nga ko gisee ni nga bind fa turam nga bind fa turam ak santam bo xamul turam ak turiyam tam jarul bind mais su boba Euh, solution bi nga mën a def mooy soo ko bindee noonu ba mu tukk ba mu juróom-ñaari yoon da nga koy xooj def ko si ndox got parfum bu amul alcool nga def ko si nga si raayu si raayu di si si ñaan sa diggante ak moom dégg nga kon boobu mooy beneen possibilité bi ñaari possibilité moo am kon ngeen jëm ko def te bu ngeen ko defee di ngeen ñëw fi témoigne ndaxte ñu ma ko defal ñëpp sant nañ gërëm kon fexe leen ngeen def ko si farata te ngeen partagé ko ñu ngi yem fi ba suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa